jàmm ji info point net jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak ak jàmm gaawal gaaw abonné xam ne moo di jàmm ji info point net. salaamaaleykum. maaleykum salaam. maam na yàlla nangu ziar. yaa maa am jàmm bu baax. Marie Diop. maam Marie ban gis-gis nga am ci xarafal jigéen. ah gis xarafal jigéen daf leen ko fekk waaye nag wax dëgg yàlla mën day d'accord ma ci. ndax ndax euh, problème yi muy indi après ndax yow comme que suñ la xarfalee da soo demee ba bëgg am doom problème lay doon ci yow te itam da nga dem ba euh, doon soo nekkee mag daal dootul dootul dootul baax ci yow daal problème yu bari lay indil daal moo tax moom suñ ko mënee bàyyi bàyyi ko te yàlla rekk tax moo gën ndax jigéen moom da waaru comme que yàlla da ko bind pour mu muy muy sëy normal. kon war na bañ am benn problème ci séyam te mhm. day indi problème ndax suñ la xarafalee ba ba ba ba pare mhm. sooy am doom dangay sonn te après loolu itam soo demee ba doon mag problème lay doon ci yow dootul baax ci dootoo mel na nga mel daal. baax man daal d'accord ma ci man d'accord ma ci daal. ndax ñi nga xamante ni tey ñoom it ñi ngi def loolu est que ñi ngi bàyyi xel li ngay wax nii. ah loolu daal jigéen ñi war na koo war na koo xam ndax moom jigéen day magasin boo xam ne bii lépp lépp lay denc. te tam ñaan nga yàlla soo nekkee jigéen yor njaboot te ñaan nga yàlla soo ëmbee ëmb ci jàmm imbi ci jàmm waaye su fekkee daal dalaa dal nga ëmb am problème dootoo bëgg ëmb xam xam nga ni dangay ngay daal di arrêté sa njur te arrêté njur yi yàlla wax ko kenn noo bëgg nuy jaboot ndax dolli askanu yonent bi kon nag moom xarfal daal man d'accorduma ci wax dëgg yàlla ñoo xamante ni am na si ñoo xamante ni tey dañuy wax ni dara mënu tax ma bàyyi ko ndax suñu tradition ah ah jaaduwul de xëy na ñoom ñu ko gisee ñu ko waxee lañ ko gisee waaye man de gisee wu ko noonu ndax lépp loo xam ne day indil euh, euh, ñàkk wér indil problème waroo koo def waaw waroo koo def xëy na mag mag ñëkk mën ko daan def dañ cee xamul woon lii ndax yeewuñu woon léegi dëkk bi ni mu yeewoo léegi ak ñi ñu yeewoo ñoom yeewuñu ko woon mag njëkk yeewuñu woon waaye ku yeewu gis xam àddina day dox loolu waroo koo def waroo koo def loo say doom ndax yàq société la waaw baaxul. mu am ci taxawaay boo xamante ni dina mën a protéger ay jigéenam. waaw loolu moo war na cee taxaw bu baax a baax a baax a baax ndax nit ñi dunoo xamul woon rek waaye ñi xam suñ ko xamee dootuñu ko def ndax nan leen yee dugg ci ñi koy def ñu mag mag ñi ko daan def nu yee leen wax leen jàngoro ji muy jàngoro ji muy indil seen doom ak jafe-jafe yi muy indi. dée nga suñ leen yeeyee ci loolu xëy na nu bàyyi ko ñàkk yeewu rek moo noo mag ñu njëkk ñàkk yeewu moo leen jàpp waaw ndax léegi ni ni santé bi euh, kii avancé léegi ku nekk war nga war war ngaa xool ci loolu ndax wax dëgg yàlla santan yàlla ndax mag bu njëkk lii xamuñu ko woon amuñu woon lii kon nag ko que léegi dëkk bi ubbi ko na ba santé bi gën a gën a yaatu war nañu dugg wax leen bu baax na comprendre ba dootuñu ko defati waaw waaw jigéen moom li ma si xam mooy lu la ndax baaxul xale boo ko def dèjà yàq nga avenir parce que du si dara dara dara loo xamante ni plaisir la man moom du ma ko def sama doom te ku ma xam tamit boo ko naree def naa si génne parce que nekkul lu baax nekkul tamit luy jëmale société bi kanam lu bon daal baaxul daal. est-ce que tey euh, xarafal jigéen du indi yeneen feebar ci jigéen. bien sûr indi mën na la indil yeneen feebar yoo xamante ni doo kii daal doo comprendre baaxul moom baaxul. ku ko mën a bàyyi daal nga bàyyi ko te war nañ cee mën a jug dox ci wax ci ndax ñu bàyyi ko ñu wax tamit li nga xamante ni moom la indi wax inconvénients yi wax li mu mën a indi yëpp ci xale bu jigéen ndax jigéen boo ko def dèjà yàq nga avenir am mën naa la wax loolu moom. xamante ni dañu naan euh, duñ ko mës a bàyyi ndax tradition la est-ce que jaadu la. non non c'est pas normal du tout parce que lu njëkkoon la ak instant bii nii bokkul loolu mën naa ni lu njëkk la mais instant bi loolu moom dañ koo war a bàyyi parce que du lu baax daal. su ma leen doon jox conseil daal dama naan ñu bàyyi ko loolu noonu passé na instant bii nii ñu dund li nga xamante ni moom moo xew dañ bàyyi loolu définitivement parce que baaxul. parce que euh, xale boo ko def déjà yàqal nga ko avenir am parce que dootul sentir plaisir moom daal mooy loolu daal nañ ko bàyyi daal moo gën daal. merci beaucoup. Euh, asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu lay delloo nuyoo. sant yàlla. la. man Ami Collé Diouf. ah Ami ñu gis ay bés yi nga xamante ni ci la ñu nekk ñuy gis ay jigéen yoo xamante ni dañ leen di xarafal ñu ci bari ci xaraf bi ci la ñuy jëlee ay problème yoo xamante ni ci seen sexe lay nekk ban gis-gis nga si am. waaw li ma ci gis moom bëri na du ma ne dégg naa dama gis ndaxte am na ñu ma xam ñoo xamante ni dañoo xarafal seen doom conséquences yi bëri na benn du wér. benn bi ñaareel bi seen sër yi day oyof mu ngi noonu duñu am bànneexu sëy ndax duñ ci yëg dara ndax li neexoon li yëpp dindi nañ ko waaw ma jànkonte si lu bëri te ku ma xam wala ma takk ak yow rek dama la koy tere man de du ma ko def sama doom li ma ci gis dafa bëri. yow fekkee naa ci ba taay na man fuuta laa nekkoon. gis naa yu bëri am. waaw kooku bañ ko ko defee moom maara day taali génn na ci àddina sax waaw nettaliwu ma ko kenn ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni conséquences yi après ñoom lay lor ñoom ñu ñu ko def te du ñu wér te en plus bànneexu sëy duñ ko am te nit moom sooy sëy bànneex ci la soo ko amatul moom jaratul sax ngay dund. muy noonu amoon na ay ay dix ans yooyu rek. waaw su fekkoon dañ ko def sax mu nekk ay mag ak yooyu sax mu xaw tane xëy na du yëg douleur bu bëri bi mais xale bu ndaw la. te ay ñu koy defee ay lenset te yooyu xam nga ne loolu moom conséquences yi moom day day metti da ngay mujj di faj wala mujj bi du si jaar mu jaare si sax du am doom te loolu moom xam nga amul sance ndaxte sëy moom doom moo tax ñuy wax ndax mooy fondement bi waaw moo tax ku ma xam wala mu jege ma rek dama la koy tere. sa biir wax dégg nañ la nga ne euh, buñ buñ la xarafalee yow jigéen doo am plaisir te ñu ci bëri nee nañ euh, tey jii. loolu moo tax jigéen di téye seen sër te yow bu ñu la déggee nee nga loolu taxul jigéen di téye sër. déedéet taxul boobu kay mooy mooy moo koy ñàkk sax téye xarafal boobu moo koy ñàkk téye baaxul benn yoon waaw baaxul benn yoon ndaxte mënuñoo mënuñoo xarafal góor xarafal jigéen. loolu mënta ne xarafal góor xarafal jigéen kon lu fay des góor kay moom xaraf jigéen kay bàyyi koog lu mu yor rek. mu ngi noonu. mu ngi noonu ci waaw. Mhm. dégg nañ la sa biir wax nga ne buñ la xarafalee da ngay oyof sër te mag ñi ñoom nee nañ dañuy bañ nga oyof sër moo tax ñu lay. déedéet sens contraire bi la nag ndax man dama kaa gis nii waaw dama kaa gis nii koo xamante ni maye nañ ko jégul benn bànneex xamu sax luy bànneexu sëy danaan lii mooy sëy lii ana lu ci neex waaw. dafa mujj jëkkëram di wut ay jabar di wut ay jabar di wut ay jabar di wut ay jabar di teg ci kawam parce que moom amul benn bànneex am munul def benn geste boo xam ne moom mun na cee yëg boppam kon xam nga ne lool amul sens waaw ku ko mun a moytu rek nga moytu ko ndax wóorul te wérgi yaram yi bëreetul conséquences yi après ñoom waajur yi duñ ko suivre xale bee koy suivre nga lor ko nit ñi di wax day ŋàmmaaral day xool ndax xam ko muy noonu loolu laa ci am ma ciy wax kàddu ngay dénk ministre bi nga xamante ni moom la ñu dénk ci lu jëm ci wàllum ndaw ñu jigéen ñi ngir mën a bàyyiwaat xel li ni mel. waaw mu yokku bàjjañu gox yi rek ñu dugg si kër yi di wax ak nit ñi wax ak waajur yi surtout mais léegi moom euh, dëkk bi moom évolué na boo xamante ni nii ñëpp léegi ba xam nañ ko xale yi léegi jàng nañu ko jàngul sax léegi danga koy daw danga koy bañ déjà xam na instant bi moom kenn defatu ko sax. soxna jaar ban gis-gis nga am tey ci xarafal jigéen. man gisuma lu lu metti parce que ñun suñ coosaan la ñun suñ coosaan duñu maama maamaati ku ko deful doomu mun a wax dëkk dëkk bi suñu dëkk olofu sax dañu ne ñëw nañu sëy fa ñu def ñu nakar naka amul nakar xol ba ñu def dem jaar si yoon boobu parce que loolu coosaan la suñ suñu maami lañu ko fekkee te islaam si la bokk ngay wax fii islaam bokkul day det sunnati sunna la si du farla wax sunna la parce que jigéen islam boo ko ko waxee boo ko wonee si jàngkat yi bu ñu ko xoolee si alquran bi am na benn islam boo xam ne dafa neew doole def ko ja dégg ñëw indi ñeenti doomu ñu xarafar ko xarafar boobu duñu def bañ gaañu nit parce que am na sobe am na sobe la sobe bi sobe bi si kaw doo nga koy cet dumu tuuti ah comme karaw si nekk si kaw ak karaw ñoo yem cepp karaw liir bi ñoo yem parce que yëpp sobe la dañ koy dindi tuuti nga dindi waati karaw bo mel ni da booy jentee sa doom nga wat karaw kon bu ne jigéen la bu demee ba mu am juróom-ñaari at da nga war a dindi tuuti set na temps yooyu suñu maam yi boo ko deful doo togg a kilifa lekk doo dugg si néegi kilifa di ko di ko nuy du la fay de parce que dafa wax ne kii dafa am sobe ñun dañ ko fekke te duñ ko bàyyi avant adduna bi jeex. d'accord mais tey jii yooyu nga xamante ni yéen yéen a koy faral di di di def wala li nga xamante ni moom ngeen jël def ko ci seen ay xel est-ce que jàpp ngeen ni lu baax la parce que yaa ngi wax sànq am na ko xamante ni def nañ ko mu génn àdduna. déedéet man mosuma gis kooku ñu koy def mu génn àdduna man de sama bot bi. fu mu ni nii fu maa ngi si aas boo xam ne ah am naa ñeen fukki at li si teg waaw musuma ko dégg musuma ko gis musuma ko teg sama bot musuma ko dégg gis nga jafe-jafe jur ku ne dal tubaab sax da koy dal te koomu xamoo raf ah, loolu surtout nit ku ñuul am na ñoo xam ne yàllaa ko bindi sa bopp mu ne boo amee doom fo nga eh, da ngay loo mun a jaar jaar fa nga fa nga jaar yoon boobu am na ñoo xam ne as danga la ñuy de te duñu seen ko am na ñoo xam yaa ngi sa néeg yi nga jóg rek te toog taxaw nii rek nga sugu dee kon dee yàlla lu ko lu mu ko santaane fam foofu lay jaar bu lay wax kii bi xaraf la ñun de xaraf def nañ ko mun nga te fii xale day say ñaar fukki at ñu xam nga lan lay xale di say fukki at ak juróom te dee wosin normal du dem hôpital day wasu normal te dee yoro doom doomam di dund. dañ ko puisque loo xam ne mag ñi dañ ko doon def la ñu daan ko def mais ñoom presque peut-être dañ xëy na dañ ko doon def di ko def góor di ko def jigéen mais boo ko defee jigéen góor mën nañ ko ko def te diine nangu na ko mais jigéen mënuñ ko ko def te diine diine nangu ko donc loo xam ni la mieux vaut ñu arrêté ko moo gën. dañuy faral di wax ni euh, tey boo xarafalee jigéen day tax muy téye boppam saa su nekk maanaam du asaala asaaloo boppam est jàpp nga ni loolu euh, loolu bokk na. mais jigéen li tax muy téye boppam ci xel mi la ci bopp bi la ak itam ci yar bi nekkul ci nga xarafal ko non non da ngay bopp bi ngay xamal da nga koy xamal ni jigéen dafa day téye boppam bu dee jullit la nga ne ko sa diine mayu nga asaaloo sa bopp. sa diine mayu nga def lii bu dee chrétien la aussi nga nga nga xamal ko ni sa diine mayu la loolu da nga da war a téye sa bopp te ci culture sénégalaise jigéen dafa war a téye boppam donc ça ne vaut pas la peine nga di ko teg lu metti ngir mu téye boppam ndax nit ki boo ko tegee lu metti ngir mu bañ a def dara day jëm ca loola. Hmm. ñu ngi lay gërëm bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf. ji